par rapport ak feetu tabaski bi macha allah euh, comme toutes les fêtes rek chaque fois ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax fête normalement du bokk ak yeneen euh, jours yi nga xamante ne mooy 100 jour de fête fete yi macha allah nit yi dañuy ñëw en masse dëgg yàlla dañuy dañuy liggéey daal ñu ngi sant yàlla dañuy liggéey bu baax a baax dañ ciy gis suñu bopp macha allah. liggéey bi fii moom macha allah amuñu ci benn jafe-jafe. heure boo disponible nañ daal ñoom heure boo leen woowee heure boo bëggee léttu amul jafe-jafe boole si nag ak prix yu abordable léttu yu rafet sa xol sedd nga kontaan. bi ñu commencé exercer métier bi ak léegi ça fait quatre ans ci ren bien avant les quatre ans nag ñu ngi woon ci leneen peut-être ñu ngi doon liggéey ci suuf ak ci suñuy expérience bopp mais depuis booba ak léegi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah rabbi alamin parce que même bu ñu jotul dara sax ñu ngi yëg ne yàlla mi ñuy suturaal ñu ngi yokk daal bu baax a baax on se plaint pas sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah parce que diggante beeg boobu feeg boobu lu nekk yokku na fi daal sant yàlla. prix bi cherul te lett yi dina rafet. waaw moo tax ku jug rek ci Zahra ngay jubal si. prix bi cherul wax dëgg yàlla moom. bii moom macha allah wax dëgg yàlla macha allah accueil bi mooy loolu moom dèjà yéex na ñëw mais ñi fi bàyyi moom. accueillir nañ ñu normal wax dëgg yàlla dalal ñu ñu toog xaar ko ba ñëw te ñu ngi ni commencé nañ di lett xale yi te prix bi moom macha allah cherul new mas bi sax di waxaalee ka laajte. ci côté fête moom d'habitude lett yi ñoom ñooy gën a ñooy gën a dox si delloo ci wàllu perruque yeeg yooyu noonu li ci ëpp dañuy indi pour ñu defaral leen ay rinçage ay steam pot wala ñu leen di toppatoo waatal leen seen perruque mais ci côté fête moom. très franchement létt yi ñooy gën a dox surtout si côté xale yi. péri yi moom fi ne péri yi lañ jël moom nit ñi ay ravest rek la ñuy leetu too saak ñi ci des ay péri lay doon parce que péri moo gën a méttee defar péri yi daa méttee defar ba pare bagage yi lépp lañ yokk léegi.